chance wala boo ku am chance dugg ci transport en commun yi ci Sénégal xam ne ñi koy dawal mesuré wuñ responsabilité wu nit ñi nekk seen ginnaaw bakkan yi nga xam ne moom la ñuy transporter parce que wóolu nit mënul weesu jamin nga ñëw yéeg ci oto ki koy dawal nar laa jóge eh, jële dakaar yóbbu la Vélingara nga toog tëdd yow di nelaw kooku c'est parce que ki nga dénk sa bakkan bi gannaaw yàlla wóolu nga ko mais kooku moom su mesuré wul euh, responsabilité boobu nekk ci nekk nekk ci ci ndoddam mais mën na def lu ne soo gisee image yi ngi ñuy wane ci suñu chauffeur yi ni ñuy comporté woo ci tali bi ni ñuy comporté woo même bus yi gën a mag ñu def ci soixante dix personnes jëm quatre personnes ni ñuy comporté woo da nga naan mii ñi est ce que xam nañ ne ñoom ay bakkan la ñu yëpp mais loolu c' est la réalité du Sénégal te loolu boo nee responsabilité individuelle am na ci mooy la discipline bi nga xam ne moom la chaque sénégalais parce que su ma nee chauffeur mooy sénégalais comportement wu chauffeur yi ñuy décrier ñun ñëpp mooy comportement wu sénégalais yi rek mooy comportement wu journaliste yi mooy comportement major magistrat yi avocat yi ministres yi député yi ñëpp wax naa ko benn chauffeur keroog mu ne Moustapha bu leen ñu fontoo su fekkee ne ñu ki war a yere joxewul exemple lu ngeen bëgg mu yar nit boo nekkee sa biir kër di tere ku saw ci couloir bi ba pare yow bu xale yeewoo soo fekk la nga taxaw di saw ci couloir bi mais boo leen waxee bu leen saw ci couloir ñu la mais papa yow fii nga saw démb wala déet su fekkee ne ñi war a jiite war a joxe la bon exemple muy président bi ministre yi député yi nangam ak nangam gouverneur bi préfet bi nga xam ne ñooñu dañoo jël ci nga xam ne mooy pouvoir dénk leen ko ñu war a joxe le bon exemple ils sont les premiers à violer les lois mais bu ñu bëggee chauffeurs yi respecter la mais dañuy nax suñ bopp donc su ma nee chauffeurs yi je dis les chauffeurs parce que ñoom ñoo xewle mais comportement yi ñuy décrier ci suñu chauffeurs yi moom moo am dans tous les secteurs de la vie au Sénégal tey Jamil boo duggee ci oto manque de respect bi nga xam ne moom ngay gis déjà rek ci ñi nga xam ne ñooy da ñooy dawal ak ñi ñi apprenti yooyu ni lay manqué respect rek dootoo bëgg ci jël oto mais soo demee tey dans l' administration boo demee à la police à la gendarmerie le manque le manque de respect nga fay fekk. tey boo duggee car rapide tey ne ne ne ne ne apprenti daf ma manqué respect ba sa xol bi jeex soo fa wàññeekoo demal police da ngay wut carte d'identité soo demee fekk fa policier bu la manqué respect de la même manière que apprenti bi boo demee gendarmerie la même chose soo fa jugee dem hôpital fekk fa benn sage-femme wala infirmier wala médecin wala keneen ku la manqué respect comme ni la apprenti bi manqué respect nga xam ne kon le problème il est général. te man li ma d'accord mooy su fekkee ne le problème il est général ñun ñëpp on a fait le constat que ni li tax ci chauffeur yi mu metti mu doy waar mooy ay bakkan la ñuy transporter à chaque fois qu'il y ay bakkan yu bare bëri ñooy ñooy ñooy ñooy tuuru et loolu dafa am solo ñu koy waxtaane mais de la même manière on doit se dire et le gouvernement du Sénégal foofu la waroon def mais comment faire pour que Sénégalais seen bopp ñu xoolaat seen comportement te xool comportement yi depuis des années ñi ngi naan waaw dañu war a yaraat xale yi waaw dañu war a euh, jàngale euh, code de la route ci ci kii bi ni ñu koy waxee sax euh, benn waaye nee na ma démb d'ailleurs dawalkatu camion bu mag nekk ci Italie Malick Sall mu ne ma di dawal te xamoo code de la route moom mooy ñu takk say bët ngay dawal rek c'est la même chose takk say bët ngay dawal parce que suñu chauffeur yi koo ci wax mu ne la man damaa mën a dawal am naa sama benn nijaay boo xam da doon wax ne soo ma joxee benn gëlëgëla mooy minicar yooyu mu ne boo ma ko joxee ci yoonu dakaar wi ma ma jiit léegi benn set place lu mu lu mu wàqi ma suul ko ça veut dire que nit du ko raw mais kooku dafa gëm ne moom mën naa dawal dafa wóolu boppam te mën naa dawal effectivement mais code de la route xam lijjantiwu ko jàngu ko xamul priorité xamul fan la war a duble xamul signalisation xamul li ñuy gis ni ci télé bi lan moo tax ñu dénk lan moo tax flèche boobu ñu def ko nii lan moo tax ñu def euh, ligne continue ba mu jàng ñu def ligne discontinue li jëntiwu ko ah sama benn mbokk na ma gis nga booy dawal Europe ma ne ko ah, mu ne ma oto di daw nga nga topp ci ginnaaw boo koy doubler bu séenee yaa ngi koy doubler rek da ngay seetlu day wàññi tànkam parce que yow mi koy duble yaa ngi ci danger oto buy ñëw sa kaw la day wàññi tànkam le temps nga rabaatru kii ñëw également bu la séenee day wàññi tànkam le temps nga mais xoolal jamil demal autoroute booy doubler nit bu la séenee day accéléré léegi su accéléré keneen di ñëw doo mën a wàññeeku doo mën a freiné booy ne ñu lay mbëkk nga dee mais loolu mooy li am ci senegal te loolu dañ koy jàng. chauffeur yi koo ci wax mu ne la damaa mën a dawal mais koo ci tegaloon léegi di ko laaj code de la route lan ak lan ak lan ak lan lan comportement bi mu war a yor tu verras tout de suite que ni li ma Malick Sall wax rek dafa mën a dawal mais dañoo takk bët yi day daw te gisul dara te comportement yooyu ñi ko war a ñi ko war a sanctionner en réalité mooy kan mooy état état mooy kan mooy gendarme policier bi nga xam ne moom lañ teg ci tali bi Jamil bis yi ngay gis nii. fii ci Patte d'Oie maa la ko wax léegi man Moustapha Diop soo bëggee bu subaa ñu daje fa a 11h jàpp midi parce que man heure boobu laa fa jaar gisal sama bët benn bis fi Dakar dem di kii nekk euh, euh, en face Léopold Senghor xam nga am na bis yu ragee foofu maa fa gis benn bis boo xam ne gis nga man maa ngi jugee côté aéroport di ñëw bi mu génnee génn ci gara terrain de football boobu di yéeg autoroute mais bis bi daanaka tëdd na ci suuf. dañ koo duye duy ba mu fees ba takk ay ay ay ay bagage ci ci ci el yi takk takk laala la takk mu ne nii man mu ko séenee sama yaram doon daw dama freiné ba mu dem ba jubbantiku ba jëlaat yoonam ma topp ci ginnaawam donc mais kooku mais buñ ne laa génn na jëm ñaaju daanu doo ko weddi te pourtant bi mu koy def y a des policiers là yu toog di ko seetaan je regrette kooku su déparé su génnee autoroute wala sax bu duggee autoroute à péage gendarme yi ñu ngi fa su génnee autoroute fu mu romb dina romb au moins quinze policiers wala ay poste de contrôle gendarmerie police yoo xam daf leen di romb ba pare yow am benn gendarme moo ko wax euh, démb ci guddi ndeysaan mu ne moom bu toogee ci tali bi bu temps yi toog ci nee na yenn bis bu nar agsi ci moom li muy njëkk xalaat mooy wax bis bi nan la def ba romb quinze poste de contrôle quinze wala lu ko ëpp pourquoi parce que da ngay gis bus bi benn lampe lay tàkkal lay tàkk hmm? li mu def ci ay nit ak bagage daanaka mi ngi ne nii ay pièces matul mais pourtant romb na ay policiers ak gendarme ba agsi foofu moo tax démb bi premier ministre waxee les vingt trois mesures man dama mais attends mais premier ministre ku mu les vingt trois mesures nan la ko mën a waxee te du wax ci corruption bi am ci tali bi te corruption boobu am ci tali bi Jamil dañoo yàpp policiers yi ak yi rek ñi taxaw ci tali bi dañ leen a yab rek naan ay 1000 francs la leen jox ak ay 2000 mais chaine bu gën a gudd loolu la tey jii est-ce que mënuñu dem plus loin ba ci biir brigade yi ba ci biir leneen ak leneen ak leneen transporteur yii transporteur yii seen syndicat yeeg yooyu mais nan la ñuy jëflante ak kilifa yi gendarmerie nan la ñuy difi jëflante ak kilifay yi police loolu état bi ko war a xam parce que transporteur yi maa la wax ne am nañ doole joo xam ne. dañuy jàpp léegi seen oto ñu toog fa ñu toog chauffeur bi woo leen ne leen euh, diw mu ne ah ñu ne ah man de jàpp nañ ma fu ñu la jàppee nga ne Karang fu ñu la jàppee non euh, nga ne Kaolack fu la jàppee nga ne ñu ngi ma jàpp KMR ñu toog fañ toog woo kilifa ga kilifa ga woote foofu ne nañ ko bàyyi mu dem mais loolu c'est des réalités wax xam ne boo ko laajee chauffeur yi léegi ñu wax la ko état bi du vérifier loolu beneen bi mooy responsabilité état dans cette affaire la faatu yow mënoo fexe fexe ba tëdd sa kër guddi bind bind daan ne faatu bis na ki tey am nga permis mënoo koo am permis bi ngay am permis bi ngay am mu neex la mu naqari la permis boobu état wu Sénégal moo la koy jox à travers ay démembrement mais permis boobu ñaata nit ñooy dawal fii ci Sénégal am permis te euh, wala bokk ñu ne ci ñu am permis seen poste mënuñoo dawal bëri na am na ñoo xam dañu am permis pare doo ko dem di lanki am ñoo xam ne dañuy jënd oto am permis te seen permis ba pare wut chauffeur mu leen di jàngal nuñ def ba am ko état bi du ko lijjanti Jamil nan nga mën a comprendre réew Sénégal mii ñu nekk réew mii réewum Sénégal mii ñu ne la car rapide yi am nañ visite technique. bis yi di daw ci réew mi ñu ne am nañ visite technique parce que man suñ ne su ma nee am nañ visite technique mooy man soo pour man soo rombee policier mu laaj la say pièces nga jox ko ko mu delloo ko ne la demal c'est que oto bi am na papier mu war a mais car rapide yi kan moo la koy xool ne la kii am na visite technique ban machine ko ban machine la ñuy teg car mu ne bii normal na hmm? bis yi yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne premier ministre dafa waroon a duut foofu baaraamam ñu xam ne moom xam na lan mooy laa responsabilité de l'état du Sénégal ci situation bi ñu nekk beneen bi mooy Diallo Niang moo ko mas a wax fii ci Walfadjri boobu yàgg na ab accident bi fi amoon mu am aw werante wu bëree bëri dañuy jël ay mesures comme nii rek ah comme nii dañuy jël ay mesures il faut tolérance zéro nangam ak nangam Macky Sall moo ko fi te waxoon doyen mu nekk ministre de l'intérieur tolérance zéro wax a wax ba pare ñu toog fii di débat ñu ne Diallo ñaa mu ne boo seetloo Sénégal accident yi jirul jirul def étude jirul dara xam nga naan la def nañu ay étude nee nañ accident yi ci ëpp c'est dû à la défiance humaine maanaam nit ki ci boppam comportement wu nit moo tax accident am mais jamit nañ wax rek boo seetloo ñi fa accident am accident moom mën na am ci condition bu ne mais boo seetloo accident yi am Sénégal jirul nekk chauffeur jirul nekk gendarme jirul nekk policier jirul nekk expert xool accident yi rek boo déggee moor yu bari dañ naan la oto moo daw moroom wala ñu ne la oto moo daw ba mbëkk benn camion bu gaare amoon na fi camion boobu defoon matt ma oto daw ba mbëkk ci suufam vingt six personnes faatu ci même route boobu ñuy wax tey amoon na fi je crois que mais loolu soo nekk ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne yow yaay président de la République wala yow yaay premier ministre wala yaay yow yaay ministre des transport nga ne ñi ngi investir ay milliards yu dul jeex ci defar autoroute defar ay pont boo leen déggee à chaque fois dañ naan li Macky Sall def ci ay kilomètres de goudron ci réew mi ba Sénégal indépendant wee ba dégg ba léegi mësul am te gëm naa ko te gëm naa ko loolu la ñuy wax mais teewul yow bis bu ne nga ne malgré li ñuy investir yëpp accident yi di gën bari oto yi di dañante comme ay xar yoo yow ci gerte ñuy mbëkkante mais tu dois te poser question mais comme oto yi. malgré li ñu investir yëpp ñi ngi ñi ngi daje di mbëkkante te à chaque fois ñu mbëkkante day gën a bari mais comment faire pour que dootu ñu mbëkkante comment pour que dootu ñu mbëkkante mais bu ñu defee tali yëpp comme bii ci buntu Walfadjri wala VDN wala Patte d'Oie mais tal yooyu oto buy mbëkk xanaa nga mbëkk sa oto ci nga mbëkk sa morom ci ginnaaw gi wala ngay romb mbëkk ko mais oto yi daje nii mais mënul am foofu xam nga lu tax parce que deux fois deux voies dañ ko séparer mais lan moo tax Sénégal en deux mille vingt trois deux mille vingt trois ñu ne la Sénégal soo fi jugee Dakar jëm disons euh, nañu wax Louga wala wax bu la neex sax ñu Tivaouane moo gën a jege soo rombee Thiès rond si Sindia boobu jël deux voies ba dugg Thiès boo xëy na euh, euh, contournement wu Thiès bi sax benn voie ñu ne la soo rombee loolu dawal fii ba maatam oto yëpp ci 7 mètres la ñuy daw wala 7 mètres peut-être moins tali bi noonu la mel mais foofu buñ ne la fay oto dafa mbëkkante war lu jaaxal tey investissement yi ñu def fii ci dakaar def ko ci autoroute à péage def ko ci Ila Touba buñ defoon peut-être la moitié xëy na dañ ne les routes nationales les plus fréquentées du Sénégal comme yoonu Kaolack bii nga xam ne defe naa ñi ngi koy autoroute ma ngay avance d'ailleurs alhamdulilahi rabbil alamin mais yoonu Kaolack bii nga xam ne jami li fay jaar ci ay bus yi jëm Tamba yi jëm Kédougou yi jëm Mali yi jëm peut-être je ne sais pas Casamance yooyu mais loolu pour man urgence la priorité des priorités au Sénégal ñu séparer ñaari voies yi pour que au moins chauffeurs yi luñ mënta lu ñu indiscipliné indiscipliné état bi ne au moins ñun def nañ li ñu war a def ba dootuñu mbëkkante maintenant ku ci saaraan dugg ci décor bi ñu xam ne saaraan na mais mbëkkante bi ba ba kañ ba kañ loolu responsabilité wu état la. te responsable état malheureusement euh, waxtu wi euh, dab nañu trop bu ñu ko doon topp Jamil man nañ koy wàññi wàññi wàññi du jeex mais très rapidement euh, Fatou boo jëlee mesures yi nga xam ne moom la gouvernement bi annoncé wax naa la bi may commencé ma ne c'est dangereux parfois nga annoncé yenn décisions yi ci mer dama ciy jël benn rek ñu jeexal ci mooy walla ñaar dañu wax ne bus yi ñu jël bagage. du ñu am porte bagage ak nangam ak nangam gis nga Pierre Edouard Faye mii di ñu romb sax bi mu demee fële accident ba amee boo déggee reportage la daf naan la ci bus yi gis nañ ci ay keesu jën ak yu demee noonu ça veut dire que ay mboq ça veut dire que ñi ciy ay bagages yoo xam ne xëy na fañ ko jëmee soxla bu mag a mag la. te état bi su bañee ñu jël transporter loolu ci bus yi mais il faut mu trouver moyen boo xam ne ku ku ku nekk fii da ku nekk fii Vélingara mën nga am jën yu ju yu jugee Dakar saa nga def ko ci bus. mais est-ce que tey am na oto jën yoo xam ne dañuy jóge Dakar dem régulièrement Vélingara wala ñu jóge je ne sais pas Saint-Louis wala ñu jóge Pout wala ñu jóge mbuur wala feneen ak feneen non pas Pout euh, Potou wala feneen ak feneen est-ce que am na je n'en sais rien les gens ils voyagent bu ñuy voyager seen ay matelas seen ay chaises yëpp ci bis yi lañ koy def tey soo taxawee nga ne léegi kenn dootul voyager ci bus yi yor bagage xanaa sac bi nga yor wala euh, comme comme ci aéroport ci aéroport yi valise bi ngay yor ñu def ko ci bus bi mais yenn bagage mënut dem léegi bagage yooyu sénégalais bi ko soxla di ko yóbbu léegi doo ko wax nu mu koy def Sénégal gii ngay gis ku defaree chambre à coucher fii ci Dakar chambre à coucher laa la wax teg ko ci oto yóbbu léegi comment faire parce que Dakar dem dikk yi état bi bëgg a du ñoom ñoo koy def. donc état bi pour man bi muy annoncé mesure boobu waroon na réfléchir ne comment faire maintenant pour que ñi doon soxla def bagage ci bis ñu am feneen fu ñu ko def je ne sais pas dañuy wut ay camion wala leen mais en tout cas leen état n'a pas répondu à cette question bi muy bi nga xam ne ñoom jàpp nañ moo ci ëpp solo te naa la wax fii ne boobu mooy indi mooy indi coow diggante transporteur ak état bi mooy état wu Sénégal man mosoon nañ ko fa wax ah, parce que c' est pas une mesure nouvelle bi mbay Ndiaye nekkee ministre de l' intérieur accident amoon vingt six personnes am deewoon ci lañ ko njëkkoon évoqué mooy interdire circulation transport yi diggante vingt trois jàpp sept la le matin loolu dama dégg Diallo ñaa wax ci ma ma yaakaar ne réflexion bu jar a bàyyi xel la dafa wax ne ñu moom ci ay chiffres am cent oto ñooy daw guddi gi sept cent la ñooy daw bëccëg gi léegi soo nee guddi gi kenn dootul daw ça veut dire que cinq cent plus sept cent ñooy daw bëccëg gi cent plus 700 égale combien 1200 véhicules ñooy daw de transport en commun ñooy daw ñooy daw bëccëg gi beneen bi mooy su fekkee dañ leen wax ne à partir de 23 heures da ngeen di arrêté mais li tubaab di wax course contre la montre course contre la montre la chauffeur def mooy dañuy njëkkante pour que 23 heures bañ leen fekk ci àll bi xam nga euh, Diallo Niang dafa wax lu ma reeloo démb daf ne chauffeur yi buñ dee yàpp. ciment fii ci Dakar di ko yóbbu Mali dañ naa taxal ma wéyeef ciment bi di ñëw sa veut dire que fii ak Bamako ñoom dañ koy lem dem jiwaat gis nga bis bu ñu nee 23 heures la ñu arrêté nit ñi la ñuy wéyeef ah mais loo bëgg 23 heures nga arrêté yow boo déparé Dakar 20 heures wala nga déparé Dakar je ne sais pas 18 heures war a dem foo xam ne leer na la yow 23 heures du la fekk yoon mais da nga koy da nga koy lem yoon wi chauffeur xam nañ leen bu baax lem yoon yi pour pour que balaa 23 heures àgg jot ñu àgg. Et loolu c'est un vrai problème. Et l'État du Sénégal n'a pas réfléchi à ça. C'est un vrai problème. donc mesure kenn du ko jël rek ci ci nu ñu koy waxee sax ci euh, accident am na dimanche lundi ñu daje deux heures trois heures après ñu ne mesure yaa ngoog vingt trois applicable tout de suite li ma ci gën a kii na nga gis premier ministre naan soixante douze heures dans les soixante douze heures nañ appliquer nañ jël les décrets tout ce qu'il faut pour appliquer am chauffeurs yi ak transporteurs dinañ bañ buñ bañul it di nga gis yoon wi bëccëg gi gars yi di fi dàqante dàqante boo xam ne da nga naan non pas possible léegi beneen bi mooy buñ nee léegi vingt trois heures ak sept ba sept heures mais normalement cette mesure là ñëpp la war a concerner et à tout moment wala déet léegi buñ ñëwee màggal Touba ak gàmm nu ñuy def suñu agsee màggal ak gàmm est-ce que dañ naan léegi vingt trois heures kenn du màggali vingt trois heures kenn du gàmm ji da ngay xaar ba sept bu ñu ko defee dinañ gis loo xam ne fii mosuñu koo gis léegi qu'est-ce qui bu màggal jotee wala gàmmu jot wala tabaski sax dañ naan léegi kon mesure bi dañ koy lever de manière temporaire su ko defee gars yi mën a daw guddi gi màggali loolu rek loolu rek sës parce que màggal gii jamil xam naa mas ngaa màggali wala mas ngaa gàmmu ji mais Dakar gii ñu baree baree bare bu ñu dee màggal dañuy bàyyi ba minuit jot ñu dem Cambérène wala feneen jël oto dem màggali parce que ñu bari jàpp na ni boobu mooy tane waaw léegi soo nee ñëpp nañ dem màggali balaa 23h jot da nga gis ku départ Dakar 7h ci suba ne day màggali balay àgg danañ màggal ba def cérémonie officielle ba ne mu Mountakha ñaanal na njaboot gi doo yegg voilà. loolu mooy résultat wu jël ay mesures euh, sans prendre le temps de parce boo gisee ni mbir mi demee dem premier ministre dafa wax lu am solo ci biir waxtaan daf ne mesures yi ñu jël kat concerté nañ ci ak tous les acteurs mais c'est pas vrai je suis te concerté avec tous les acteurs ci benn réunion boo xam ne euh, quatre heures de temps maximum je suis désolé concertation dafa laaj ngay le premier ministre ak son ministre des transports xëy na ñuy recevoir les différents acteurs kenn par kenn groupe par groupe koo ci waxtaanal ba jàpp dara nga bind après nga boole leen jël ay décisions. mais doo toog ñëw kii wax kee wax kii wax kee wax nga pare ne lii mooy décision yi applicable dans les 72 heures c'est pas possible je suis désolé beneen bi mooy bala ñuy def mesure sax la mesure bi waroon a njëkk mooy le ministre des finances le ministre des transports abale démissionné waaw bu démissionné pare keneen ñëw ñu xool nu ñu lijjantee mbir mi ñu ngi gërëm ñëpp